ba tey ñu ngi ci délégation du président de la république ki nga xamné ne mom lañu la ñu comme ni ma leen ko waxé muy Serigne Cheikh Abdou Lahad Fatma mom Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma mom Serigne Modou mustapha mom Serigne Touba. di dom nak ci Alhaji bara di kenn na ci président de la république di ministre d'État aussi di un responsable bo xamni di domi soxna bo xamni lepp lo loo si mi ngi jëm ci rawat na nak ci njabootu Serigne Touba mo mu ji mat sëkk bis bi nak muy tombeeg bisu alxaaji Baara sëriñ Cheikh ñu ngi lay nuyu baax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi lay fay ñu nuyu mboolem mbokk ñu di sant yàlla lu ñu boole ci xéwal gu day nii muy bis boo ndamul islam di bis boo xam ne na Sëriñ Tuubaa liggéeyaloon sunu borom ak taxaw gi nga xam ne da nga taxawu diine loolee moo walangaan bak si bañ defal jëf gi nii kon bis boobu képp ku fekk rek war nga wax alhamdulilah rabbil aalamiin ci loolu tey lañ fi teew ci lu président Macky Sall mu yebal euh, ministre d'État Ousmane Ismaïla Madior ak délégation man ma gàttal ni leen waaye sama teewaay fii surtout mooy sama diggante ak Cheikh moom leen baax ndax dafa nekkoon euh, sama waajur am fu ma tegoon am lu mu jàppoon ci man defal ma itam loo xamante ne foog naa ne mënu sub defal nit lu ko gën a rëy mooy liggéey loo ma ci jumaay Serigne Touba jumaa ji moom ci liggéey liggéey bépp sama loxo bi la ko tegoon booba Touba liggéey bu fa am bu ndikkee danaa leen lépp di wàllu technique dem nañ ci Cheikh Abdou kon confiance boobu moom daa amoon ci man loolu mooy li ma seqoon ak moom mu nekkul nit ku baax nekkoon nit ku yéwén nekkoon nit koo xamante ne bii borom bàccin la woon allah ji lu mu wax suñu borom dana ko def nekkoon nit koo xam ne lu dul sëriñ Fallilou ñoru ko te sëriñ Fallilou sëriñ Tuubaa rek nekkoon koo xamante ne bii lu lu teew da ngay dégg mu ne Cheikh Abdou lii de sa lii ba mu teewee de sa maam nii la defoon kon dafa amoon référence référence bi moo nekkoon Cheikh Modou Fadal dund xilaaf ak Serigne ba mu jeex tàkk loolu moo tax mu réussir ak xilaafaam ci jër bu gàtt am fi du tolloog ñaari at ak genn wàll waaye kenn ku ne gis na liggéey bëri bi nga xam ne liggéey na ko fi muy liggéey boo xam ne mën ngaa def sax fukki at te doo liggéey lu toll kon loolu ak njàmbaar dëgg dëgg dëgg dëgg moo ko ndimbalu sunu borom moo ko lal lu yàlla barkeel ak lu Sëriñ Tuubaa nangu moo ko lal moo tax mu def loo xamante ne bii tam lu rëy a la jumaa ji ci ay ndamam la bokk ndax jumaa ji tàmbali ko rek doy na ndam ndax naa la wutal nii ak fi jamono ji toll nga fas ko yéene tàmbali te yaakaaroo ci kenn ku dul jëmmi Sëriñ Tuubaa loolu rek doy na ndam loolu nag ndax xam kan mooy Sëriñ Tuubaa ndax maam Thierno ba muy gas la nga xamante ne bii moo di jumaay Tuubaa ji nit romb ko ne ko Thierno de xamul xamul ay seng lu muy jar xamul tabax ndax lii de ay seng rek mu ne mu ne xaw ma de man seng lu muy jar waaye ki may liggéeyloo xam naa ko kon kooku mooy Cheikh Mawlana Bara moo ndax nag dañ koy ñëw barkelu ci bis bi di ko ñaanal yàlla rek sunu borom fay ko liggéey bëri bi mu liggéeyal maamam jërëjëf